الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamualeykum sunu mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit seen doomu ndey pasteur Ahmed Fall maa leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen nuyu ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di sant yàlla sunu boroom bi mu ñu mayee ñu tal ko ba toog fii niñ koy defee saa su nekk ubbi téereem bu sell bi nga xam ne moom la ñu jox muy biibal bi téere bi nga xam ne moom yàlla mi ngi seede ne ci gémmiñam la jóge te am na njariñ ngir jàngal ñu ngir jubbanti ñu ngir yedd ñu ngir yeeñu ba danañu mat ci bépp jëf ju rafet yàlla sunu boroom dafa wax ak ñun ci téereem bu sell bi jàngal ñu boppam jàngal ñu itam la nga xam ne bëgg na ko ak la nga xam ne aaye na ko la ko neex ak li nga xam ne mi ngi koy séentu ci ñun ay jaamam yàlla sunu boroom jàngal ñu ci téereem bu sell bi ngir ëllëg bu ñu déggee li mu jàngale topp ko danan bokk ca ña texe ba dugg ci bërëb bu sell boobu nga xam ne moom la pareel ñi ko ragaloon ñi ko toppoon ñi ko déggaloon yàlla sunu boroom di ñu wax ci téereem bu sell bi ci biibal bi jukko yi nga xam ne moom la bëgg a gis wala boog moom la séentu moom la namm ci ay jaamam te yàlla lépp loo xam ne wax na ko namm ko ci jaamam bu ko jaam bi déggee wéyee ko di ko dundee li mu ciy gis mooy texe li mu ciy gis mooy yokkute li mu ciy gis mooy jàmm yàlla sunu boroom wax ci fukki ndigaale yi nga xam ne jox na ko yonentam ba muy Musaa ci fukki ndigaale yi nag tey jii dama ci bëgg tudd benn boo xam ne bëgg naa ñu xool lan lañu aji sax ji wax mu jëm ci ndigaale googu bu ñu jàngee ci kóllëre gu njëkk ga tubaab di ko wax ancien testament jàng ci xaaj bi ñu tuddee ci wolof mucc ga ñenn ñi di ko wax gàddaay tubaab di ko wax exode jàng ca aaya ñaar fukk ci saar fukk ak juróom benn lii la yàlla sunu boroom wax lii mooy digaale bi nee na bul seedeel sa moroom lu dul dëgg bul seedeel sa moroom lu dul dëgg mu dellu siwaat waxaat ci téereem bu sell bi ca kóllëre gu njëkk ga ca xaaj ba ñu tuddee baamtu gi ñu koy wax Deutéronome ci nasaraan ci aaya juróom ci saar ñaar fukk mu ne bu leen seede lu dul dëgg bul kàcc bu leen seede lu dul dëgg bul kàcc yàlla sunu boroom woo ay jaamam wooñu ci wax luy dëgg wooñu ci sori wala moytu di kàcc su ma ko bëggee wax ci baat boo xam ne waxambaane yi danañ ko xam dama naan fen bul fen bul kàcc bul seedeel sa moroom loo xam ne du dëgg bul seede loo xam ne du dëgg bul kàcc yàlla di ñu aaye wax loo xam ne du dëgg yàlla sunu boroom daf ñu jox boppam muy royukaay wante nag yàlla mooy yàlla aji sax ji mooy aji sax ji wante am na yoo xam ne mi ngi ci moom mi ngi naan ay jaamam yi ñu doon mën ngeen ci roy am na yoo xam ne nag duñu fa egg mukk wante yàlla dañuy woo ñu roy ci moom dañuy woo itam ñu roy ci yonentam yi dañuy woo ñu roy ci nit ñu baax ñi wante dañuy woo itam ñuy roy ci moom te yàlla ba mu feeñalee boppam ci téere bu sell bi biibal bi dafa ne moom mooy aji dëgg ji maanaam dëgg rek moo nekk ci moom ba muy wax sax ne moom du doomu aadama bay wax di wacc mu ne Musaa bindal ci tawreet na ko sama jaam yi dégg te ñu jàng ko bugguma sama jaam di kàcc bugguma sama jaam di seedeel moroom wala di seedeel loo xam ne du dëgg yàlla ne man may aji dëgg ji lépp lu mu wax lu am la lépp lu mu dige dana ko def du leer di lëndëm du wax di wacc te yàlla sunu boroom dañuy wax ne ñun ay jaamam lépp loo xam ne woo nañu ci gis na ne mën nañ ko def àttan nañ ko yàlla duñu woo mukk ci loo xam ne àttanuñu ko aji sax ji buy woo jaamam bu koy soññ di ko xiir naan ko tegal sa tànk fii dafa fekk ne war na ko mën a def te bu jéemee dana ko ci dimbale ka nga xam ne moo indi gàkk-gàkk diggante sunu maam aadama awa ak aji sax ji moo doon saytaane seydina isa almasi bi yeesu kirist ci injil nee na yahud yi bàyyi leen xel ne kat iblis moom mooy baayu kàcckat yi ndaxte kàcckat la kon képp koo xam ne yaa ngi kàcc am na loo xam ne tibb nga ko ci iblis nekk na ci yow muy ab jukko moo tax ba mu ñëwee ca bërëb ba yàlla sunu boroom jagleeloon aadama ak awa dafa ñëw kàcc leen ñu dégg loolu nga xam ne wax na leen ko ñu topp seen bakkan topp seen nafsu bañ a déggal yàlla def la leen neex mbugal ga fekk leen ca yàlla sunu boroom ne bul kàcc mu ñuy wax ci téereem bu sell bi ca kolëre gu njëkk ga ca xaaj ba ñu tuddee saraxalkat ga ñu koy wax ci nasaraan lévitique ci aaya fukk ak juróom ñeent saar fukk ak benn ba saar fukk ak ñaar lii la yàlla sunu boroom wax nee na bu leen kàcc bu leen di warante bu leen giñ lu dul dëgg nee na yow sama jaam bi bul kàcc te bul wor nit ne yow te bul giñ loo xam ne wóor na ne lii du dëgg te ñu gis ne toll nañ foo xam ne woyafal nañu giñ woyafal nañu dige ñaar yooyu dañ ko woyafal muy fii ci sunu réew Sénégal bi ma xam bi ma dëkk bi ma juddoo bi ma cosaanoo balaa may wax feneen wayafal nañu giñ wayafal nañu dige te boo digee te defuloo yàlla sunu boroom ma nga lay féetale te ñooñu nga xam ne dañuy kàcc dañuy wax lu dul dëgg dañuy seede lu dul dëgg ndaxte képp koo xam ne yaa ngi digee muy sa digganteeg sa moroom ne yow bul jàpp ne mbir mi ci yéen ñaar képp la yem ndaxte boole boo digee yàlla sunu boroom mooy seede boo waxee nit am loo fasanteeg moom yemul ci yéen ñaar rekk yàlla sunu boroom mooy ñëw seede ko doon ñetteel bi nga xam ne loxoom dana ci dugg loolu moo waral muy artu ay jaamam naan leen bu leen kàcc bu leen seede lu dul dëgg bu leen di giñ loo xam ne doo leen ko def lu dul dëgg moo tax dige nekk loo xam ne lu diis la joxe sa kàddu nekk loo xam ne lu diis la wante ñu toll jamono yoo xam ne dañ koy woyafal di ko caaxaane dañuy faral di wax Sénégal naan dige bor la wante ku nekk xam na ne bor dañ koy fay atte bor mooy fay te boo ko fayul fii ëllëg danga ko fay ngalla ñi nga xam ne nag fayuñu fii seen bor ëllëg yàlla koñe leen ne leen tey nag da ngeen fay moo tax mu naan ay jaamam bu leen digee muy wax sax yàlla dañuy artu di wax ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu njëkk ga ci tawreet ca xaaj ba ñu tuddee baamtuwaat ca aaya ñaar fukk ak ñett saar ñaar fukk ak ñaar ba ñaar fukk ak ñett lii la wax nee na bañ a dige amul bàkkaar li seen làmmiñ dige sàmm leen ko jëfee ko yàlla dafa diisal dige dafa diisal kàddu goo joxe ba nga xam ne artu nañu nee na nga bañ ko def jàppal ne doo ci am benn bàkkaar nit ki nga xam ne jóg na bañ a dige nit ki nga xam ne joxewul kàddoom kooku donte ŋaññi nañ la ci yàlla nee na amutuloo ci benn bàkkaar déedéet mbir mi kay mi ngi tàmbali di metti ci yow boo joxee sa kàddu boo digee te defuloo kon ki nga xam ne lànk ne ne kat man duma dige kenn dara ki nga xam ne lànk ne ne duma joxe sama kàddu kooku yàlla nee na dara dara du ko ci topp moo ko wax ci téereem bu sell bi te lu mu wax moo nekk dana ko def nee na ci bamtu ga ci aaya ñaar fukk ak ñett ci saar ñaar fukk ak ñaar ba ñaar fukk ak ñett nee na bañ a dige amul bàkkaar li seen làmmiñ dige sàmm leen ko jëfee ko kon yàllaa ngi ñuy wax nañu may nañu ñun ay jaamam ñu bañ a dige bu ñu neexee ñu bañ a joxe sunu kàddu bu ñu neexee donte nag dañuy puus ci loolu mën nañu bañ a joxe sunu kàddu bañ a dige dara duñ ci fekk mbir mi kay mooy nga dige te doo jëfe mbir mi kay mooy nga giñ te nga xam ne lii nga giñ doo ko jëfe doo ko def mukk foofu la mbir mi nekk moo tax yàlla sunu boroom li ñu wax naan ñu bul kàcc bul seede loo xam ne du dëgg doo ko jëfe te ki nga xam ne day kàcc ki nga xam ne day dige lu mu dul def yàlla sunu boroom lim na daan yi nga xam ne dana wàcc ci kawam yàlla sunu boroom wax na li nga xam ne mbugal la giy wàcc ci jaamam ji nga xam ne day giñ ci kaw loo xam ne du ko jëfee ëllëg kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
Alleluia
kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy ci waxtaan wi nga xam ne ñi ngi ko lal ci li ñu yàlla sunu borom wax ci téereem bu sell bi mu ñu jox muy biibal bi yàlla sunu borom di ñu artu ñun ay jaamam ci wax luñ dul def ci dige loo xam ne duñ ko def joxe sunu kàddu ci loo xam ne duñ ko def wala di giñ ci loo xam ne biir nañu ne lii kat duñ ko def du dëgg yàlla sunu boroom di ñu artu mi ngi wax ci téereem bu sell bi ci kóllëre gu njëkk ga ci xaaj ba ñaan kàddu yu xelu yi ñu koy wax ci nasaraan proverbe ci aayo fukk ak benn saar fukk ak juróom lii la yàlla wax nee na ki dul dige mi ngi ci jàmm yàlla moo wax loolu nee na ki nga xam ne du dige kooku mi ngi ci jàmm wante ki nga xam ne mi ngi ci fitna mooy ki nga xam ne dige na ndaxte li nga dige yàlla seede na ko te mi ngi xaar nga jëfee ko kon yow boo ko woyofalee aji sax ji woyofalu ko te mi ngi lay xaar nga jëfee ko mu doon dige goo xam ne nag dafa dox sa digganteeg nit ñi sa digganteeg sa mbokk sa dëkkandoo sa am di jàmm koo seqal liggéey wala koo seqal mbir ak dige bu mu mënta doon yàlla sunu boroom a ngi ñuy wax ne kat moo koy seede te moom mooy ki nga xam ne moo koy atte moo tax mu ñuy wax ci téereem bu sell bi ne ki nga xam ne kat téye na boppam téye na làmmiñam mi ngi seet di saytu bu baax li muy wax ki nga xam ne du dige nee na kooku mi ngi ci jàmm ndaxte ku mel noonu amul benn fitna goo xam ne dana wàcc ci sa kaw ki nga xam ne du giñ ne kat danaa def kooku amul dara loo xam ne dana wàcc ci kawam moo tax mu wax ñu ci téereem bu sell bi ne ki nga xam ne du dige kooku mi ngi ci jàmm wante bu la mbir yi ëppee doole wala boog nga jiital sa nafsu ba dige loo xam ne doo ko def bul jàpp ne mbir mi fii ci kaw suuf rek lay yem yàlla nee na déedéet ndaxte moom mi nga xam ne dem na ba ne ci téereem bu sell bi wax ak ñun ay jaamam yi nañu kat bu leen di dige loo leen dul def nañu wóor nañu ëllëg moom mooy ki nga xam ne dana àtte lépp loo xam ne mës nañ ko dige te jëfewuñ ko lépp loo xam ne itam dige nañ ko te jëfee nañ ko moom moo ñu koy fay dige lu foor la wante yàlla sunu boroom jël dige ëmb ko ci ndigaale gi mu wax ne bul kàcc bul seede lu dul dëgg muy wéy di wax ci téereem bu sell bi ci kàddu yu xelu yi ñu naan ko proverbe ci nasaraan ci aaya ñaar fukk saar ñaar fukk ak juróom nee na bul gaawtu di dige ba dugal sa bopp bul giñ di rëccu yàlla ku baax la yàlla yërmande la yàlla bëgg na ay jaamam moo tax mu ñuy yedd mu ñuy yedd di wax ak ñun ne ab waajur ni muy waxeek njabootam di leen yedd ne ab kilifa ni muy waxeek ay nitam di leen yedd di ci boole yërmande di ci boole laabir di ñu yedd ngir ñu mbaja soobu ci loolu nga xam ne ay fiir la yu ñuy julal ëllëg mbugal moo tax mu naan ñu bul gaawtu di dige bul dugal sa bopp bul giñ di rëccu nga naan suma yëgoon yàlla ne bul yegg ba foofu bu la wóoree ne lii kat attanuloo ko doo ko def kon bul joxe sa kàddu bul giñ bul dige waxal rek la nga mën a def wala boog nga noppi bañ a wax dara bu boobaa nga nekk ci jàmm moo tax mu ñuy wax naan ñu bañ a dige am jàmm te boo diggee da nga gàddu ab bor te àtte bor mooy fay
yàlla dañuy wax ci téereem bu sell bi ci kàddu yu xelu yi ci aaya ñaar fukk ak ñaar ci saar ñaar fukk ak juróom benn nee na bul bokk ci ñiy digee di gàddul nit bor digee bor la faw ñu fay ko nee na bul boole sa bopp ci ñiy digee di gàddul nit bor ndaxte boo xasee dige rek gàddu nga ab bor te bor danga koy fay te yàlla mooy ki nga xam ne dana atte bor boobu kan ko ko war a fay danga ko ko fay boo ko ko fayul fii ci kaw suuf ëllëg bésu pénc ba danga ko ko fay yàlla bëggul kuy wax li sànni aji sax ji bëggul ay jaamam di woyafal seeni kàddu yàlla bëggul koo xam ne day dige te du def moo tax mu naan ñu buleen gaawtu di dige mu ñuy wax naan ñu ñàkk dige du bàkkaar boo lànkee ne kat man duma dige na xaw ma ëllëg lu may fekk ci sama kanam nee na loolu duma la ci topp dara du bàkkaar moo tax Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di wax ci injiil kóllëre gu bees gi ci xaaj ba ñu jagleel Macë ci aaya juróom ci saar fanweer ak ñett ba fanweer ak juróom lii la Yeesu Kirist wax nee na dégg ngeen itam ne waxoon nañu maam yi ne leen bu leen weddi seen ngiñ waaye li ngeen giñ def ko ngir boroom bi waaye man maa ngi leen di wax ne bu leen giñ dara bu mu doon ci asamaan ndaxte moo di jalug buur yàlla bu mu doon ci àddina ndax moo di tegukaayu tànkam bu leen giñ it ci seen bopp ndaxte mënu leen a weexal mbaa ngeen ñuulal benn ci seen karaw sa wax na nekk waaw sa waaw na nekk waaw sa déet na nekk déet lépp lu ci tegu ci iblis lu jóge loolu la Yeesu Kirist wax nee na bu leen weddi mukk seen ngiñ maanaam boo leen giñee ne dangeen def boo leen digee ne dangeen def Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nee na bu leen ko weddi mukk na ngeen ko jëfee nee na li ngeen giñ li ngeen dige def leen ko ndax yàlla mi nga xam ne moom mooy seede yàlla mi nga xam ne mooy àtte nee na bul giñ ci turug yàlla bul giñ ci sa bopp nee na ndaxte mënuloo sa bopp dara xamuloo sa ëllëg waaye sa waaw na nekk waaw sa déet na nekk déet nee na lu ci tegu rekk ci iblis la jóge mi ngi ñuy woo foofu ci dëggu mi ngi ñuy woo foofu ci wax li nga xam ne moom nga mën moom nga àttan ndaxte àdduna day jeex li fi nekk day jeex ëllëg ñu taxaw ca bésu pénc ba jàkkaarloog aji sax ji bu boobaa mu àtte ku nekk te foofu nag léppay wéy ba faw muy lu baax lañ lay jagleel muy musiba wala boog mbugal gay wàcc ca sa kaw day wéy ba faw moo tax mu ñuy artu dee leen dëggal dee leen dëggu sa waaw na doon waaw sa déet na doon déet nee na lépp loo xam ne teg nga ko ci rekk ca iblis la jóge bu la sa làmmiñ yóbboo ba nga wax loo mënul a def wala nga dige loo mënul a def kooku tàbbi nga ci ab fiir goo xam ne ah mbugal ga de danga ko gis moo tax yàlla dañuy wax ci kàddoom bu sell bi nee na ci kàddu waare gi ci aaya juróom saar ñett ba juróom benn nee na bañ a dige bu la sa làmmiñ yóbbee bàkkaar ba ngay lay naan lii kat ab njuumte la woon ana lu jar yàlla di la mere nee na bañ a dige bu la sa làmmiñ yóbbee bàkkaar kon yàllaa ngi ñuy wax foofu ne nga dige bañ a def bàkkaar la xaw ma ndax ñun Sénégal gëm nañ ko wala gëmuñu ko wante loolu la yàlla wax te li yàlla wax rek a am nee na jaamam ji nga xam ne mi ngi dige te doo def nee na loolu ab bàkkaar la bindal na la ko bàkkaar nee na bu la nang sa làmmiñ yóbbee ci bàkkaar googu ba ngay toog ëllëg naankat loolu ab njuumte la woon nee na ana lu jar yàlla di la mere yàllaa ngi ñuy wax foofu ne jaamam ji nga xam ne mi ngi dige te du def jaamam ji nga xam ne mi ngi joxe kàddoom te du def meru gi yàlla dana wàcc ci kawam meru gi yàlla dana wàcc ci kawam loolu la ñu yàlla sunu borom di leeralal fii moo tax mu ne ana lu jar yàlla di la mere ala lu jar aji sax ji di la mere mu wax ko ci téereem bu sell gi nee na bu la sa làmmiñ yóbbu ci aji sax ji di la mere wala boog mu lay bindal bàkkaar moo tax bu ñu xoolee ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal ba ñu jagleel sag ci aayu juróom saar fukk ak ñaar lii la wax nee na bu leen giñ na ngeen yem ci waaw ak déedéet ngir bañ leen a lu bon fekk leen ci nee na bu leen giñ na ngeen yem ci waaw ak déedéet ngir bañ lu bon fekk leen ca am na nag ñu bari ñoo xam ne dañuy woyofal dige dañuy woyofal giñ noonu la ñuy dundee dañuy wax loo xam ne duñ ko def seen làmmiñ yóbboo leen loo xam ne ëllëg yàlla sunu boroom dana leen ko toppee moo tax Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di ñu wax naa ñu dee leen dëggu na sa waaw doon waaw na sa déet doon déet moytu leen di dige loo xam ne doo leen ko def fàttaliku ndigaale gi ñu yàlla sunu boroom wax nee na bul kàcc bul seede lu dul dëgg kon mbokki auditeurs yi man pasteur Ahmed Fall maa nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi di sant yàlla sunu boroom ci jëmmi Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di ñaan mu barkel askanu Sénégal di ñaan mu saxal fi jàmm di ñaan mu raxas xol yi di ñaan mu def ci ñun ñépp ragal yàlla yal na leen yàlla sunu boroom barkeel ak diiwaan boo nekk ak diine boo gëm ak fépp foo wéeru maa ngi ñaan ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla wàccee jàmm xéewal yiw ak yërmandeem ci sa dund yow ak sa njaboot wasalaam mbokki auditeurs yi
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.
الروم